loolu moom foog naa ne ci saasa laa ko wax ministre bi ne ko daal euh, su ma sañoon nga may ma ci Touba benn gré de protection may ñu ko aussi fale ci Canaba mu d'accord ci ñu annoncé ko léegi kon jàpp naa ne loolu souvenir lay nekk incha allah bu ñu yàlla mayee jàmm bu dewen ku fi ñëw di nga fekk ñu réaliser benn gré de protection ndax loolu ministre bi jëlee ci engagement ba pare ndaxte Canaba ak Touba Toul dañu bokk ci Sénégal ñu war leen dimbali defar leen ndax ngu ñaan ngeen fàttali ko ci daaw man sama bopp maa jël fukki million def ko ci état Sénégal complète ak ñaar fukki million ak juróom ñu def fa gré préso boo xam ne moo méngoo comme bi dem ba Diop ak bu comme bi rek ci stade yëpp am naa yaakaar ne aussi fii ci Touba ak ci ba sama loxo dina ci dugg comme ni mu duggoon ci Ngoundiane ndax ministre bi dina ci dugal loxoom ñu dugal suñu loxo pour ñu permettre Touba Toul ak ba ñu mën a retrouver li Ngoundiane am ñu am ko ndax lu ci Sénégal lañ bokk. man sol ma mbubu parti socialiste mbubu Sénégal laa sol mbubu réew mi laa sol euh, affaire politik indi te loolu indi li fi indi rek mooy lijjante ji et moom laay kon ne di ko lijjante ji sal moo ko denk gouvernement bi retourné dénk ma ko loolu daal laa tal waaye taluma affaire parti taluma affaire leneen bon li nga xam ne daal moom laa fàttaliku mooy jox naa leen fukki jeu de jox leen ñeenti ballon jox leen fukki blouson jox leen ñaari coupe jox leen ñaari million ak juróom fukki junni muy deux millions deux cent cinquante mille loolu laa fàttaliku bon deux cent cinquante na am dafa am sama benn xarit boo ko joxee te yëguma ko waaye loolu ma leen wax daal loolu laa def. ñu xamante balaa ndombo tànk di nekk ci ñun. yàlla def ñu jox ñu ndombo tànk yoo xamante ne ànd ak moom liggéey yàllaa ko def moo tax mu ñëw ñu tuddee ko luy toll ni final ci Toubatoul mu invité ñu ci ñu ñëw fekk fi maire Toubatoul fekk fi cana ba mais fekk fi préfet bu cana ba autorité yëpp ànd ñu ànd ceeg entraîneur Koto pour mu ñëw xool ndaw ñi parce que dañoo bëgg fu ñuy dem ñu yóbbaale ko pour may ndaw ñi chance parce que ñu mel ni man dëkk ci kaw yi loo xarañ xarañ te amoo ku la jàppale mën ngaa bañ a am li nga bëgg ci sport moo tax ñu andiwaale ko ñëw fi nag fekk fi mobilisation bu am solo parce que réew mi yemul Ndakaaru yemul Fatick yemul cees dëkk yii dañu bokk ci réew mi am les mêmes droits moo tax président di ñu wax fépp nañ fa dem pour mun leen jàppale bi ñu fi ñëwee gis nañ bi yi ak jaxasoo bi fi nekk mu laaj grille de protection ñu ñaan ñu ko ñu am yéene jël décision ni dina leen jàppale ci grille de protection jàppale it cene ba ci grille de protection loolu nekk loo xamante ne président moo ñu ko sant parce que réew mi la fi nekkal ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñoo même am même droit am même devoir may wax nag ne jeunes yi dañ leen war a encourager parce que ku ñëw ba gis conditions yi ñu footballé te déggoo coow déggoo morso yu xonq déggoo dara war ngaa xam ne ñeneen Ndakaaru it am lu gën li am war nañoo jël seeni préoccupation ak philosophie bu am solo mooy réew mi ñëpp a soxla ñëpp lañu war a jàppale ñun ñëpp bu ñu àndee nag jàpp ci yar ak teggin lu nekk mën nañ ko am te loolu lañ fekk Touba Toul ñu ñaan match bi jeex ci jàmm li mu fi def nag lu rëy la parce que xaalis bu bari la fi génnee àndi ay matériel sportif teg ci enveloppe deux millions loolu lu am solo la te ku koy def pour jàppale ndaw ñi ci wàllu sport ñun nga koy defal parce que ñun lañ dénk wàllu woowu moo tax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal waa Touba Toul final bu neex di ñaanal it waa Touba ñu jàppale seen i autorité local pour ko lépp lu fi nekk jafe-jafe suñu àndee ñu mun ko rek. footballu ndaw yaa ngi gagné handball baa ngi gagné footballu mbeex maa ngi gagné lan mooy secret bi. sant yàlla rek sant yàlla xam nga nag euh, loolu mën na bett ñu bare bari mais ñun duñu bett xam nga kilifa réew su joxee nopp ab secteur rek bu ñu góorgóorlee tuuti rek secteur ba dana dox parce que dañoo am président de la république boo xamante ne. bi ñuy ñëw ci ministère bi 900 millions lañ fi fekkoon pour équipe nationale yu Sénégal yëpp discipline bu nekk mu ñëw yóbbu ko 2 milliards 6 ñëw budget ministère des sports mos ta am 10 milliards mu yóbbu ko 17 milliards 5 résultat dafa war am parce que nag leneen li ci doon andi jafe-jafe mooy xuloo beeg ŋaayoo beeg yooyu xiiroo beeg ñaaka ànd bi loolu mënta ànd ci ñu parce que ñun ci lañ bokk ku nekk jox nañ la sa cër li ñëpp bokk nag ku ci nekk boo ko joxee cëram rek. jàmm rek ay am moo tax jàmm ji la ñu ànd président fédération ànd ci journaliste yi ànd ci sénégalais yi ànd ci sportif yi ànd ci moo tax jàpp nañ ne lii nga xamante mooy ci nekk ci xelu sénégalais yëpp ñu war cee dem fii ci tubaatul ñu ngi ñaan ñëpp ñaanal ñu ci mm. ba nga xamante bu ñu fa demee yàlla may ñu ndam bu amee moyen am décision politique am jàmm am ñu xarañ defe naa ne résultat yi ñu am rek la ñu war am moo tax ñu ngi ciy sant yàlla bu baax baax ci sant sénégalais jërëjëf waaw merci